présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen kaay gi ne na Ousmane Sonko li nga xam ne moo ko dese mooy jël mbir mi ak i avocat yóbbu ko cassation journal bi nee na par corps loolee la waa cour d'appel wax maanaam Ousmane Sonko bu fayul Mame Mbaye Niang 200 millions yi mën nañu ko teg loxo mën nañu ko jël yóbbu ko sa kaso ba maître El Hadj ci biir journal bi nee na Sonko dafa jàppee boppam yàlla ju ndaw ay nit ñoo xam ne a jeex ci réew mi kàddu yu maître Seras ñu xëy fekk fa Ndiaga Sylla expert la ci lu jëm ci wàllum élection daan nay wax ne lii nga xam ne moom la ñu daan Ousmane Sonko bu dee nag mbir la moo xam ne mu définitif la maanaam bu ñu demee ba ci pandaw ga juróom benn weeri kasu ñu daal di koy jàpp Ousmane Sonko dina toog lu toll si juróomi at yoo xam ne maanaam du mën a bokk ci élection i kay gi di réew mi ko di jeexee xibaar naan ñu ni ki démb dogal bi ginnaaw bi mu waddee ñi nga xam ku nekk daan nay bind massawu ni Khalifa Ababacar Sall Déthié Fall Aminata Touré ak Malick Gakou ba tey ci biir wax ne jamono ji maanaam gars nañu jóg ngir nag bëgg a éliminer Ousmane Sonko ci élection présidentielle 2024 waaye nag moom Aminata Touré nee na ma ngi ngir nag ñu daal di mobiliser woo yéen gi ñu xëy fekk fa Assane Samb journaliste taskatu xabaar nee na jamono ji tembe ñuy wax Ousmane Sonko mënatul bokk ci élection présidentielle 2024 article L30 bu code électoral bu Sénégal moo ci kaw Ousmane Sonko juróom benn weeri kasu la ko tëj lu jëm ci wàllum diffamation Mor Koule journal bi nee na Ousmane Sonko ba léegi may ngi jayax-jayaxi waaye nag mën naa bokk ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëg la naam cour d'appel nee nañu ko tëj lu toll si juróom benn wéeri kaso journal bi nee na ay manifestation amoon na diwaanu Mbour ay manifestation amoon na diwaanu si diwaanu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru foofee tamit na ay manifestation journal bi di bés bi xëy ñu Ousmane article 30 code électoral bu Sénégal journal bi di réew mi quotidien nee na Barthélémy Dias ni ki démb moom tim daat nay wax nee na bi nga xamante ni moom la gars di ŋawta ŋawte moom moom woote dialogue bi daat nay wax tamit ne Sénégal fi mu jëm baaxul loolee moo tax moom Barthélémy Dias mu daal di woote bi te nee na li nga xam ne wax na ko ak Macky Sall avant mu koy waxante ak Macky Sall lépp Khalifa Ababacar Sall yëg na ko waaye lépp Ousmane Sonko ay nit ñuy dox tànki jàmm ñoo bëgg jàmm am ci réew mi moom Barthélémy Dias nee na ba muy dugg di gisante ak Macky Ousmane Sonko la mujj waxanteel téléphone waaye nag Barth nee na la mu wax Macky mooy da ko wax na ko Macky Sall ba mu xool ko mënu ko mënoo bokk ci élection présidentielle yi nga xam ne moom lañu ñu dëg ma la waaye nag ñi nga xam ne ay détenu politique la ñu nekk ci kasu bi ñooñee tamit dañu leen a war a bàyyi Barthélémy Dias daan na koy wax ne Macky ñi nga xam ne dañoo jóg bëgg leen a faagaagal ngir ñu bañ a bokk loole tamit dañu ko war a te ñi nga xam ne xañ nañu leen ñu bokk ci ñooñee dañoo war fexe ñu bokk Barth na loole loolee la wax Macky Sall daal di ci yokk nag lu jëm ci wàllum forum de bi ñu doon amal jëm ci économie sociale solidaire Barth nee na la wax Macky Sall te mbooleem li nga xam ne wax na ko Macky avant mu ko koy wax Khalifa xam na ko Sonko daan na koy xam yéen kaay gi di Direct News nee na en tout cas li am ba de Sall Ousmane Sonko jamono ji ma ngi gën di sori élection présidentielle 2024 ndax cour d'appel bi ñoom nee nañu ko jàpp news nee na bu ñëwal ci àtte bi wara a dox digganteem ak Adji Sarr fukki fan ak juróom benn ci weeru mai ci kanamu chambre criminelle la mandat de mener mën nañ ko ko yóbbu la yéen kaay gi di réew mi ko di jenqi ñu xibaar naan ñu dialogue bi jamono ji féewale ne coalition Yewwi Askan Wi ndax Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko jamono ji ñoom ñaar ñoo ngi jokkalantey kàddu yéen kaay gi di enquête xëy fësal ci xët njëkk ne Sonko dos au mur Sonko jamono ji dafa sës ci miir bi Birame Souleye Diop bu Pastef nee na Ousmane Sonko bi de soleil nee na ko dara wóoru ci Ousmane Sonko li ko dese mooy cassation ngir nag mu mën a bokk ci élection yi il faut ñi nga xam ne ñuy waa cour de cassation maanaam yàq wér dég bi yéene kaay gii di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu ay manifestation amoon na ci diwaanu Mbour am na ñaari bus yu Dakar Dem Dikk yoo xam ne dañu ko faa taal poste finance bu Mbour dañu koo taal poste finance bu Ziguinchor dañu koo taal journal bi nee université Cheikh Anta Diop bu Dakar démb mbir mi ci kanamu cour d'appel nee na tamit musul wax Ousmane Sonko na ko Macky Sall nee na magistrat bi la atte maanaam la bokk ba tey moom Barthélémy Dias ci biir journal bi di Direct News daan nay wax ne Ousmane Sonko dafa lànk ba tëdd sa naaj ñëw ci forum bi nga xam ne moom laa ko invité woon waaye je prends acte kaddu yi Barthélémy Dias la yéene kaay gi di Walf Fadjri ci xët mu njëkk doomu Sampol Dias bi nee na posture homme d'état bi nga xam ne Fall mi nga xam ne mooy premier adjoint maire bu Ndakaaru daal nay ñaawlu bu baax a baax maanaam mbirum traître wor gi nga xam ne jamono ji moom moo am ak ñàkku ngor gi nga xam ne feeñ na lool yéen kaay gi ñu xëy fekk fa bugaan gi dane moom nag daal nay ñaawlu bu baax a bukki yi nga xam ne ñoo sàngoo deru béy moom bugaan gi dani nee na am na ñoo xam ne dañuy ñëw naan la sama xarit nga fekk dara du ci dëgg maanaam dañuy di la ngir nag écarter Ousmane Sonko yéen kaay gi du l'Observateur Barthélémy Dias nee na ça jeexal te su ma ñëwaatee dinañu xam ne ñëw naa Barthélémy Dias laa tudd yéen kaay gi di Le Quotidien yor yora bu pa constitutionnaliste daan wax ne Ousmane Sonko mën naa bokk ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal laas yéen kaay nee na lu toll ci ñaari téeméer juróom-ñett fukk ci militant Pastef yi nga xam ne ñoo nekk ci kasu bi jamono ji ñoo ngi grève de la faim yéen kaay gi di L'Info Alioune Tine nee na élection Sonko dañu ko daal di sacrifié Barthélémy Dias dafa mujjee nekk sax avocat Macky Sall journal bi nee na Khalifa Ababacar Sall ak Karim Wade ak Ousmane Sonko jamono ji même cas ñoo niroo ay cas yéen kaay gi de Les Échos Barthélémy Dias nee na Sénégal nii nga xam ne moom lay doxee kenn ku nekk ñoo di fenn buñ ci jógul buñ ci waxul maanaam kii nekkaan njiitu réewum Sénégal mën naa bañ a nekk ab civil yéen kaay gi de Source A nee na neexul ba neexul waaye Barthélémy Dias un cas suspect la journal na un cas suspect Barthélémy Dias